محشوش سخي كان ذا همم يسعى دواما لنفع الدين والنسم شيخ منتقى زاهد بل عابد ورع حبيب تيرنو مداني سابغ النعم سلالة العمر الفوتي قد لعبت دورا عظيما لنشر الدين والقيم وكلهم أحسنوا حتى أتى شيخنا ceerno madani qadimul hadrati alkarami fa antuma fa antuma fakhru dinillahi khaliqina خليفة المصطفى المختار من أممي قصيدة قلتها شكرا لحضرتكم دوما على الخير والتوفيق والنعم فالله أسأل أن يمد عمركما حتى يزيدكم التوفيق بالعسم يا رب صل على المحمود سيدنا والآل والصحب والأتباع كلهم حتى أتى حتى أتى حتى أتى دور هذا الشيخ أي منتقى ابن البشير نقي الوجه والكلم ولفيا ولفيا maanaam daal dem na ba li ko dalee ci maam Mor Anta Sali ba maam Jaara Bousso Dieng seen ndaje bi ñu dajewoon ak Cheikh Alhaaji Oumar xéewal ak yiw yi fa amoon ñu koy dondante ba Seyxul Xadim ñëw muy ñëw di ñëw ba yegg ci ah, sëriñ Muntaqa xalifa bi Muntaqa Bachir koo xam ni boo ko xoolee xar kanam dafa set waxam dafa set eh, loolu màndarga li nekk ci xol bii la cheikhun bachuusun nit la koo xam ni bu xar laab la safiyun ku tabe la Ceerno wax na ko léegi kaana za ximami borom yitte la ndax diine ji kawe yasa dawaaman li nafi diini wan nasami lu muy dox yépp njëriñu diine ji la ak mbindeef yi amul xëj amul seen pour ñépp nekk benn cheikh muntaqa zahidun bal aabidun wariun ku déddu àddina la te am na ko waaye mu déddu ko kuy jaamu yàlla la waaye li ma ci gën a ki xabibu Cerno Madani soppee Cerno la Cerno soppeem la kon xam naa daal asalaamaaleykum ne na li fi teew ci xorom tey bare na lool ci lu baax. moo ko taxawee. soo xam ne jënd bu tëdd jii toog moo ko taxawee. loolu taxaw rek. dellu si ak tuuti. moo tax mu ne tey day xoolal doon na dellu ak lépp. ak koo xam ne. waaw koo xam ne dañ ko bëgg te gisoo waaw hmm. dañ ko bëgg ba nag. Ah. waaw tey dañ koy bëgg te gisoo ko. tànk yu baax yi ñu jóg jógee Dakar baax si fii teew fii sama kanam boppam ak boppi bàyyi yi mu rafet. waaw nee na bu jógee tànk yu baax tànk yu tedd yi ñu jël eh, ànd ak bokkam yu baax yi ànd ak jëfam turé ji ci kanam. ne da nga ko bëgg te gis loo ko. waaw eh, da nga ko bëgg te xam ne da nga ko bëgg te gisoo ko. bu rafet yi jëmee ko ci yow. waaw nee na comme bu dafay taxawaay bu bu rëy bii jëmee ko ci yow. loolu dañ lool. ci man. waaw léegi si yàlla sëriñ bi nee na. nee na loolu day dana yéeme lool ci moom. maa ngi sant suñu borom bu baax a na maa ngi sant suñu borom bu baax a baax. may tawfeex ji. man mi nga xam ne moom suñu borom moo may Serigne Mountakha moom dafa feex ju rëy ji ma am ci jëmm ji. maa ngi sant maa ngi sant suñu borom bu baax a baax. waaw nee na loolu day ñu ngi koy sant borom bu baax a baax. waaw nag maa ngi sant Cheikh Cheikh Madani maa ngi koy sant ca bu rëy a rëy. waaw nee na ñu nee na kenn si waat di sant daal Cheikh Madani. Cheikh Madani Cheikh Madani sant bu rëy a rëy. koo xam ne amul fenn fu mu ko yem. sant koo xam ne amul fenn fu muy tàmbalee amul fenn fu mu yem. dama ko seet na bu baax a baax a baax a baax. waaw dégg nga bu dee xolam seet na bu baax a baax a baax. amul benn bis boo xam ne mën naa ko am bu ëppoon bii nga gis ëpp mu ci ëpp njëkk waaw nee na amul benn bés boo xam ne mën naa am dëgg mu ko ëpp bis. ci bis bii mu am tey seen seen seen jàmm nag. maa ngi koy sant di ko gërëm bu baax. sëñ bi nee nañ koy sant bu baax di ko gërëm. li nga xam ne moom la suñu shaayir mag bi mu tënkee. dégg nañ ko bu baax a baax a baax. waaw xam nga fàttali. Euh, soñ. waaw nee na li nga xam ne moom la waykat bu mag bii wax. li mu li mu tënk. Thierno Ibrahima lii. Thierno Ibrahima lii. nee dana ko dana ko fàttali dana ko soñ. gën a sant rek. waaw waaw ñu gën a sant bu baax rek. parce que itam li fi nekkoon. Mm-hmm. xam maam fas yéene moo ko nooyi rek ñu am ñu am te yéene gën a fàttali diggante bi bu baax li nga xam moo nekk bi ci diine makarimul axlaaq ci mm-hmm. taxawaay mm-hmm. gën a fas yéene gën a fàttali su ndax ci gën a gën a gën a soowu ji diggante boobu gën cee mën a taxaw suñu kenn kàttan loolu rek moo moo moo fi nekk kon li bu ko wax mm-hmm. yàlla xam na ko mm-hmm. xam na Thierno ba itam bu mm-hmm. ñàkk lu ci xam yàlla moo def suñu diggante cofeel gi yàlla moo ko def ko def ci man sopp ko ba ko déggee turam rek daa ko soppaloon sama bopp bi ma gisee yi dañ ko gën koo sopp gën koo bëgg gën koo bëggee. kàddu yi kaw ma lu may wax. waaw kàddu yi dafa dul wax kenn dara dara dëkk bi. daanaka kàddu yi kenn mënu ko firi. moo tax ma ma ma ngi bàyyi. xanaa li ci amoon lenn ci li ci li ci xalaat rek mooy gàtt gi. waaw waroon waroon li ci doon doy ci man. te dara wax du tey sax. moom maa woon ay fan yoo xam ne. dañuy xëy ci moom ci kon. loolu boobu loolu moo ciy seet sama xol. kon mel na ne ci da lay amee rek gàtt gi rek moo ci. moo ci nekk ci loo xam ne. neexul fi noonu. xëyoon ay ay fan la fiy def. bu xëyee di xëy ci moom di ko ci moom. est-ce que. kon loolu moom toujours mu ngi gis yow. Erdoğan onun nefisi yok. daal di ngeen ko ci taxawaayam boobu. ba bu njëkk a gis. waaw 1980. xam naa wax na la ko mars 1980. boobu boo ko gisee rek. waaw ak boobu itam. waaw. amoon waaw ci jotaay bi. waaw parce que ñun ragal na ca Lagos. bien. fekk sëriñ moom. waaw di koy gunge. ñoom dañ ne taalibe yi dara ko ci benn hôtel. bu ñuy wax Christo. Christo. néeg bi ñu nekk nii nga xam ne fa lañu fa lañu dalal sëñ bi. fekk néeg bi ki tegale amoo fanaan. fanaan ba yënguñu woon. bu ñu ubbee rek jant moom. waaw keroog loolu mars ak kanam waaw waaw léegi dox ñu mën ko waaye fekk moom amoo mii daanaka lépp noo ko defandoo. loolu yëpp mënuñu toog yàlla dogal ma léegi ko sëriñ bi ay sëñ bi da ngay wax ne ko boo dee ba fi mu saa su ma la gisee wala ma xalaat la rek am na yiw ma la yiw ma la ma la mu ne sa ndaw si ziar Cheikh Seydou Cheikh Moutaga ma si li mën a ak kii bi nekk na sama masjid bu baax a baax wuti na bu baax a baax kontaan nañu si nañu si moom fekk nañ si moom almu ci taalibe dëgg la dafa yónni si ñoom may garaat bu may garaat bu garaat yooyu loolu moo la gën a. boobu boobu ma gën a. loolu boobu ma gën a. garaat yooyu. garaat kat moom ak Serigne Moustapha ñu ko jaar ke yàlla def na dafa wax toog rek ma dong waaw ko toog si wàllu teraanga si wàllu bernde lépp Alaaji Abdou Samad mu ne déet nii nii rek amul nee ko déet mu taxaw moo ne laa def lépp daal mu si lépp. ko ci yàlla mel nag comme que suñu taxaw moo ne na nga def na ndigal la defal nee na jërë ngeen jëf jërëjëf yi yow moo dem saxaaba def jërëjëf yi jërëjëf yi jërë ngeen jëf daal moom la ñu yàlla may suñu barke mag ñi fi nekkoon mu dem yàlla may ñu ñu jëflante ak mboolem àddina ci mais du yàgg du yàgg du yàgg. mun ko ne topp si tànk mag li fi ñu tegoon seen tànk ak seen seen tànk. ñu borom may ñu lépp lu jëfoon ñu liggéey ko ñu jëf ñu jëf ko ñu liggéey. ndaxte ne ñu mel ni meloon yàlla may ñu mel noonu. xalifa bi jërëjëf jërëjëf. salaamaaleykum